asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ngeen dal ak jàmm ci xibaar yi digg bëccëg yi bayeekoo QTV ak Q radio bëccëgub tey bi ngeen di si ànd ak Xadijatu Koli ñu seeti bopp xibaar yi. président bu jiite mbootaay bu ñu naan Islamic Development Bank moom moo ci si biir réew mi arjuma ci ngoon kilifa yoo xam ne naka ñoo nekk ci biir réew mi maanaam ministre yu nekk di liggéey ci bànqaasu nguur gi ku leen jiite di ministre bu ñu dégg wàllu koppar gi ñoom ñoo génn pour dalal ko. ministre bu ñu dénk jëwrin bi saytu wàllu jokkalante gi ak mbirub xarale gi muy wuyoo ci Ousmane Eba ci arjuma bi jëwrinam bi am na ndaje jaarla ko digganteem ak taskatu xibaar yi matuwaay bi jëwrin bi jël na ko pour xamal askan wi yokkute yoo xam ne naka jot nañ koo am ginnaaw ba ñu sosee seenub kuréel bi ba tey ba tey ci bopp xibaar yi Social Security and Housing Finance Corporation ñoom naka ñoo doon bànqaas goo xam ne naka ni ki démb yóbbu nañ dimbal ci bànqaas bi tu wàllu kaaraange bi ñii naka joxe nañ koppar gi war a toll si ñaar téeméer junni ci xaalisu dalasi ñu jëndee ko ay jumtuwaay yóbbu ko ci ñi nga xam ne naka ñoo nekk di liggéey ci wàllu kaaraange bi mbokk yi li doon bopp xibaar yi ñu taxil bu ñu dellu see ñu yaatal xibaar fi jot am ci bëccëgub tey bi président bu jiite banqaas bu ñu naan Islamic Development Bank arjuma ci ngoon moom moo yegg ci si biir réew mi ministre bu ñu dénk wàllu koppar gi ak doxalinu koppar réew mi moom ànd na ak ñenn ci kilifa yi nekk di liggéey ci banqaasum nguur gi ñu dem naka ci airport bi pour dalal ko naka ci biir réew mi kilifa gi néemee comme gi naka mbir la goo xam ne daf ko nekk di def rek pour bàyyi xel projet yoo xam ne naka seen banqaas bi ñu ngi ko nekk di dooleel bu ñëwee ci biir réew mi kilifa gu jiite mbootaay yëpp Islamic Development Bank bi muy wuyoo ci président docteur Mohamed Souleymane Al Joza nemmeeku koo xam ne def na ko ci biir réew mi mu ne tànkam lu mu doon rek mooy pour ñu xool projet yoo xam ne naka seenu bànqaas bi ñu ngi koy dooleel ci wàllu koppar bu ñëwee ci biir réew mi mu bokk ci naka OIC projet bi muy defaraatub yoon goo xam ne naka ñu ngi koo def ak tamit fara Faraba Bantang campus boo xam ne naka ñu ngi koy samp mu nekkee naka sa diwaanu Faraba bi Islamic Development Bank bi naka seenu président bi moom ci waxtaan goo xam ne naka am na ko jokkook taskatu xibaar yi xamal na leen naka taxawaayam ak it matuwaay goo xam ne naka seenu banqaas bi ñu ngi ko jël pour dooleel naka nguuru président Adama Barrow bi mu ne moom naka mu jëlee toogu bi jiite mbootaay bi fukk ak juróom-benn weer ci ginnaaw ci la am yéene naka pour ñëw ci biir réew mi war a mën a xool naka projet yu ñu nekk di dooleel ci wàllub koppar gi mun a xoolit yokkute yoo xam ne naka réew maa ko soxla ak i tamit mbir yoo xam ne naka ñu ngi ko dooleel ak it seet naka liggéey goo xam ne ñu ngi ko dooleel ndax pare na ab neen ndax bépp liggéey goo xam ne dooleel nañ ko dafa war a pare Islamic Development Bank seen président bi di docteur Mohamed Souleymane Al Jaza ba mu continué di wax ne yokkute naka dafa war am ci bànqaas yi mu ne mu looloo tax naka ñoom seen mbootaay gi ñu taxaw naka pour doole leen le réewu Gambie bi mu ne waaye tamit am nañ yéene naka pour gis ne doole nañ yeneen dëkk yu nekk ci tundu Afrique bi tamit naka dafa am solo wala sax dafa bokk ci suñu liggéey bépp projet goo xam ne naka ñu ngi koo doole wala balaa ñuy dooleel ab projet dañoo isi bi naka ñu ko gestu mbiru waxtaanee ko xool naka buñ ko mënee dooleel ñu def ko waaye naka lu ci gën a bari dañ koy dooleel mu ne te Gambia bokk na ci dëkk yoo xam ne naka dañ leen nekk di dooleel ci wàllu kopal ngir ñu mën a am naka ab yokkute mu ne suñu mbootaay bi naka lu war a si juróom fukk ak juróom-ñaari dëkk ñoo ci bokk te dañ dee jël naka matuwaay pour gis ne jàppale nañ dëkk yi mu ne bu ñëwee naka ci biir réewu Gambie bi ñoom am nañ yéene pour lëkkaloo ak ñoom jàppale leen ci mbir yu bari mbir yu leen di indil ab yokkute Sidi Keita doon ministre bu ñu dénk wàllu kopparu réew mi ak doxalinam moom naka kàddu goo xam ne na naka gaaral na ko mu ne nemmeeku goo xam ne naka président bu Islamic Development Bank bi mu ko def ci biir réew mi dinañ yegg naka ci place yu bari yoo xam ne naka ñu ngi fay liggéey a projet te seenu kuréel bi nekk naka di ko dooleel ci biir réew mi mu ne lii naka bokk na ci matuwaay yoo xam ne naka dañ ko jël pour man ko doole réew mi tamit indi ab wéccite ci dundu askan yu fi nekk di yeewoo ministre bu ñu dénk kuréel bi saytu wàllub jokkalante bi ak mbirub xarala gi muy wuyo ci Ousmane Iba moom nag bi ñu sosee kuréelam bi ba tey bii doon na yoon bu njëkk mu oote ab ndaje jaar la ko digganteem ak taskatu xibaar yi yéen gi lu mu doon nag mooy pour xamal askan wi yokkute koo xam ne naka jëwriñam bi am na ko ginnaaw ba ñu sosoo ba tey ak it yenn ci jafe-jafe yoo xam ne nag dund nañ ko. ministre bu ñu dénk wàllub jokkalante bi mbirub xarale gi mi wuyoo ci ministre Ousmane Eba moom nag waxtaan gi wala sax kàddum gi gaaral na ko ci ndaje goo xam ne nag am nañ ko taskatu xibaar yi te ministre bi nag oote ko pour ñu xamal askan wi yokkute yoo xam ne nag jot nañ ko am ci seen wàllub liggéey bi ginnaaw bi ñu commencé liggéey bi ba tey ndax ñoom nag seenu bànqaas bi mosu doon am ci nguur yu ñu passé bii nag moo doon nguur gu jëkk gu ko taxawal bii mu doon naka yoon bu njëkk kuréel gi naka di am waxtaan jaarle ko seenub diggante ak taskatu xibaar yi ginnaaw bañ leen sosee ba tey te matuwaay bi naka lu mu doon mooy pour lu waxtaane yokkute gi ak it leeral naka yenn tuuma yoo xam ne naka ñu ngi ko joxoñ seenu banqaas bi jëmale ko naka ci wàllub defaraatu mbirub xarala gi ak it wàllub jokkalante bi moom Ousmane baa kilifa yoo xam ne naka ñoo nekk di liggéey ci bànqaasu nguur gi mu bokk ci naka ministre bu ñu dénk wàllu jokkalante bi ñoom naka ànd nañoo ak moom pour waxtaan goo xam ne naka mu ngi ko doon am ak ñi nga xam ne naka ñooy taskatu xibaar yi moom naka wax na ne ginnaaw ba ñu sosee kuréelam gi si juun ci at bu ñu passé ministre gi naka am nañ yokkute yu bari te bokku na ci naka pour gis ne 4G limited internet boo xam ne naka ñu ngi ko ŋawti ŋawti ñu dooleel ko naka ci biir réew mi gis ne naka am na ba tey tamit naka mu ne ci seen yokkute bi tëral nañ naka ab sata guy bàyyi xel jafe-jafe goo xam ne nag askan waa ngi koy dund ci wàllub xarale gi tamit nag tëral nañ ay sata pour gis ne dooleel nañ nag ab xaatim goo xam ne dañ ko bindi pour gis ne képp koo xam ne ŋàññi nañ la wala sax ñu wax la naka sudul noonu wala ñu def la naka sudul noonu ci buntu xarale yow naka lu waa dina teg loxo kooku la xam ne naka moo la tooñ ba tey tamit mu kontee di wax ne naka ci yokkute yoo xam ne naka am nañ ko ñu ngi taxawal naka ay mbirub internet mbirub computer si njàngub UTG bi ak itamit yeneen i bànqaas yoo xam ne ñu ngay jàngale njàngub kaw a kaw gi bu ñëwee naka ci tund yi nekk ci biir réew mi ba tey tamit mu continué di wax ne matuwaay gi lu mu doon rek mooy pour dooleel wàllub internet gi ak it jëfandikoo li nga xam ne nag mooy mbirub technologie bi. ci kàddu goo xam ne nag gaaral na ko ba tey mu ne mu ngi jaajëfal naka seen àndandoo yi bànqaas yu taxawal seen bopp ak i tamit bànqaas yoo xam ne naka ñoo leen di dooleel ci wàllub koppar gi. mu ne ñii naka ñoo tiyee ci seen mbaggee ba nga xam ne naka ñu mën a am yokkute géeñ mu ne mu ngi leen di jaajëfal di rafetlu naka seen taxawaay mu ne ndax naka bu fekkut ne banqaasum ndimbal yi jàpp nañ ci ndi kon naka yokkute gii nga xam ne naka am nañ ko dina doon metti ci seen kaw torop kilifa gi ba tey rek mu konte di wax ne ñoom naka ñu ngi jël matuwaay pour gis ne dëgëral nañ mbirub internet bi ci biir réew mi tamit yokku qualité am gi mu ne yit nag réew mi ñu ngi soxla nag ñaareelu pipe goo xam ne nag dañ koy def ci géej gi ngir mun a dëgëral wàllub internet gi tamit nag gën koo yaatal bu ñëwee ci dund yi nekk ci biir réew mi ci matuwaay googu tamit mu ne moom nag bànqaasam gi ñu ngi jël nag taxaw pour dooleel nag mbirub internet gi dooleel wàllub jokkalante bi yaxanal ko nag askan wi bu ñëwee ci biir réew mi kuréelub social security housing and finance corporation ñoom nag koppar gi war a toll si ñaar téeméeri junni ci xaalis dalasi boobu la ñu jël nag jëndee ko ab jumtuwaay yóbbu ko nag si jëwriñ bu ñu dénk wàllu kaaraange bi mu doon ab ndimbal goo xam ne nag dañ ko jox gambi Armed Forces pour doole leen ci seen wàllub liggéey bi jàppale leen tamit ci jumtuwaay goo xam ne nag ñu ngi ko joytu ne dañ ko soxla ci seen wàllub liggéey bi ngir ñu mën a dooleel seen bopp ndimbal gi nag dañ koy isi pour jàppale ñi nga xam ne nag ñoo nekk di liggéey ci wàllu kaarange bi bu ñu fàttale ko ci at bu ñu passé si weeru juunam njiitu réew di président Adama Barrow moom nag oote woon na ndimbal di ñaax nag bànqaasu ndimbal yi ak nitu benn bopp yi pour ñu jàppale nag nguuram gi ñu mun a indi wéccite nag ci dundu nëpp ñuy liggéey ci wàllu kaarange bi ak itamit mun leen di jàppale nag si jumtuwaay yu ñu soxla Social Security and Housing Finance Corporation ñoom nag seen bànqaas bi ginnaaw nag ba njiitu réew mi kàddu googu ci lañ jël naka ab matuwaay pour gis naka dooleel nañ ñi nga xam ne naka ñooy yëngu ci wàllu kaaraange bi ci ndimbal bi naka joxe nañ ay smart TV joxe naka ay fridge ay générateur ak yeneen i jumtuwaay yu jàppale naka wàllu kaaraange bi ci seen wàllu liggéey bi. Serigne Modou Ndiaye moom mu doon ministre bu ñu dénk wàllu kaaraange bi moom wax na ne bagaasu ndimbal yi naka ñëw na ginnaaw ba ñu jooytoo ne jigéen ñi ak góor ñoo xam ne naka ñooy liggéey ci wàllu kaaraange bi dañu soxla ndimbal te seen CDS bi di Yankuba Dramé mo moo gaaraloon kàddu gi si jamono joo xam ne naka ñu ngi doon wóor banqaasub taqadeer yu nekk ci biir réew mi surtout ma naka yu nekkee ci tund yu nekkee ci kaw gi Social Security Housing Finance Corporation ñoom naka ci taxawaay goo xam ne jël nañ ko ñu boole ko ci seen sattagu ju fas yéene jëfandikoo bayoo ko atu 2022 muy at bu ñu passé dem ba atu 2026 ngir indi naka ab yokkute ci seen wàllub liggéey bi doole réew réew mi dugal seen loxo ci mbir yi indi ab yokkute ci réew mi bii naka bokk na ci ndimbal goo xam ne naka ñu ngi ko jël pour indi ab wéccite ci dundinu askan bi yeewoo ci biir réew mi Doudou jeen moom mu doon naka acting managing director bi ci Social Security and Housing Finance Corporation moom naka wax na ne ndimbal gi naka dañ ko fas yéene tasaare ci yeneen di bànqaas te naka Gambia Social Security Housing Finance Corporation ñoom naka dafa bokk ci seen yéene pour continuer di dimbale askan wi indi leen ab wéccite ci seen wàllu dundu gi te lii naka ñu ngi ko fas yéene def pour képp koo xam ne mu ngi yeewoo ci biir réew mi ñuy xanal naka sa dund. Yankuba ba Dramé moom mu doon naka chief of defence staff ci Gambia Armed Forces moom jaajëfal na naka ñu isi dimbal gi ci taxawaay koo xam ne naka jël nañ ko mu ne naka ndimbal gii dina leen yóbbu fu sori te yi naka dina isi ab wéccite ci duninu askan wi doole li nga xam ne naka mooy wàllu kaarange bi mu ne mu ngay ñaax yeneen bànqaasum ndimbali ñu jël naka taxawaay gu mel nii Gambia Armed Forces doon naka taqader yoo xam ne dañ leen di bàyyi xel pour ñoom naka seenub liggéey lu mu doon mooy pour taxawu askan wi ci seen kaaraange taxawu seenub yelleef ak i doole seenu mbirub kaaraange bi ci taxawaay googu naka nguurub président Adama baro bi ñoom ñu ngi jël matuwaay pour dooleel ñii ni ngir mën a dooleel naka kaaraange bi réew mi mën a aar naka bakkanub askan wi wàññi naka ñaawteef yoo xam ne moo di am naka ci biir réew mi buntu jàngekaay bi ñu naan Saint Peter senior secondary school seenu taalibe yoo xam ne naka jotoon nañ fay jàng ñoom naka seenu mbootaay bi ñoo fa yóbbu ndimbal jox leen naka ay ndimbalub taabul ak yi toogu te naka boo ko xaymee ci xaalis da dem naka ba si juróom fukki junne dimbal gi naka ñëw na ñu ne pour jàppale naka taalibe yoo xam ne ñoo fa nekk di jàng tamit delloo jukkal buntu jàngekaay bi ci yokku xam-xam goo xam ne naka def nañ ko ci seenu dund ba ñu mën a toll naka fu ñu yegg tey pour delloo njukkal buntu jàngeekaay goo xam ne nag moo tax ñu am tey lii ñu am St Peters Alumni Association muy mbootaay koo xam ne naka taalibe yu mosoon a jàng ci buntu jàngekaay gi ñoom ñoo ko taxawal ñoom naka ñoo isi ndimbal pour delloo ñu kër seen buntu jàngekaay gi te ndimbal gi naka mu ngi ci ay taabul ak i toogu yoo xam ne naka dañ ko jox seen xaleñ wala sax jox ko buntu jàngekaay bi pour doole leen ci wàllum njàng mi Paul Elef Mendy moom mu doon naka principal si buntu jàngekaay bi jaajëfal na naka taalibe yoo xam ne ñoo fa jot a romb ci ndimbal goo xam ne naka ñu ngi ko continuer di isi si buntu jàngekaay bi Margaret Bukoria moom mu doon vice chairperson bi si mbootaay yëpp taaliba yi moom naka gaara na kàddoom di wane mbégteem a kontaanteem ci ndimbal gu ñu isi si buntu jàngekaay bi mu ne ñun ñëpp ëmpale ne jaar nañ si buntu jàngekaay bi te buntu jàngekaay bi bokk na naka ci lu tax ñu am naka tey lii ñu am mu ne kon dafa am solo pour ñu delloo leen jukkal mu ne naka ndimbal gi balaa moo ñëw ñun taaliba yi fi musa jaar naka dañ leen rajaloo ñu waxtaan xool naka naka lañ leen di mun a jàppale mu ne ci wax ne naka ñu isi ay toogu ak i ci buntu jàng jàngeekaay bi mu ne te naka ñu ngi am yeneen i ndimbal yoo xam ne naka ñu ngi ko bëgg a isi buntu jàngeekaay bi benn naka am nañ ci waxtaan ak ñi xam ne naka ñooy kilifa yu fi nekk di jàngale pour ñu gisee naka defaraa ne néeg goo xam ne naka foofu la jàngalekat yi dee to tamit naka jàppale leen ci ay jaas yi Bernard di moom mu doon naka chairman board of governor bi ci buntu jàngeekaay bi moom wax na ne toogu yi naka na leen yóbbu fu sori mu ne yi naka dina isi yokkute ci xale yoo xam ne naka ñoo fa nekk di jàng mu ne tamit dina mën a tax naka xale yi ñu toog naka seen xel dal ñu mën a jàng mu ne naka yokkute goo xam ne naka ñii ñu ngi koy isi si góor ñi jigéen ñu nekk di jàng si buntu jàngeekaay bi mbirub yokkute la te mu ngi leen di ñaanal yàlla mu fay leen Elena Cole moom mu doon naka secrétaire général ci mbootaay bi moom wax na ne mënut a fàtte naka buntu jàngeekaay bi ndax buntu jàngeekaay bi bokk na naka ci lu tax mu yegg naka fii mu yegg tey Saint Peter senior secondary doon na nag ab buntu jàngeekaay goo xam ne dañ dee jàngale lu aju ci wàllu métier te yi nag lu ci gën a bari seen xale yi nag dañ di defar ay taabu ak i toogu te nag toogu ak i leen ndimbal goo xam ne nag isi nañ ko seen taalibe yu fa musu na jaar naka ñoom ñoo ko defar Adama Mendy moom mu doon koo xam ne nag moom moo jiite banqas bi jàngale lu aju ci wàllu métier bi si buntu jàngeekaay bi moom mu ne mu ngee ñax ndaw ñi góor ñi ak jigéen ñi pour naka ñu jàng métier gi mën a dugal seen loxo ci mbir yu leen di dooleel mu ne njàng bii ngeen di def naka nekkul ñëpp buñ ci pare naka dañoo am liggéeyu office mu ne moo tax naka mu óor pour nga am naka sa métier bopp mu ne métier ji mel ni carpentier do na métier goo xam ne métier gu noobu la waaye mun na cee ngëbandu pour dooleel boppam St Peters Alumni Association doon na naka mbootaay goo xam ne dañ ko taxawal naka ci atum 2017 te naka mbootaay la goo xam ne dañ ko taxawal pour dajale xale yoo xam ne naka jotoon nañoo jàng ci buntu jàngekaay bi ngir ñoom ñëpp naka ñoo bennoo sànni wante loxo delloo njukkal seen buntu jàngekaay bi tamit dooleel ko pour xale yoo xam ne naka ñoo fay jàng léegi bu ñu manqué dara ci seen wàllum njàngame. mbokk yi liye doonoon xibaar yi leen fi amaloon ci bëccëgub tey bi yaatal yi ngeen di si doon ànd Xadijatu Koli di leen jaajëfal ci ànd bi di ñaan yàlla mu may ñu ñeendoog jàmm jërë ngeen jëf ci topp bi wasalaam